ci lu ñeel procès bu Ndiaga Diouf waaye xam leen ni li ni mel amul benn njeexital wala gàllankoor bu muy am ci candidature am ci poste bu maire bu Ndakaaru euh, loolee daal euh, kile di Serigne Thiam daal di xamle moom euh, enseignant la chercheur ca faculté des sciences politiques et juridiques bu université Cheikh Anta bu Ndakaaru waaye la mu ca rax dolli moo di Barthélémy Dias bu fekkee dañu ko condamné li nga xamante ni mooy ay ndombol tànkam dañu koy teggi ñu déglu ko amul benn impact bu am si candidature am mënu koo teree def campagne si toutefois le préfet de Dakar retenir na dossier yu mu déposé pour le moment dañ ko war a convoquer pour déglu ko même bu fekkee dañ ko convoquer nii ñu jàpp ko par rapport à ça dans cas de figure aussi amul benn impact boo xam ne mën nañ ko jàpp si candidature am bi parce que buñ fàtte ni ay élection bu ñëwoon Barthélémy Dias gagné nekk maire de Dakar ñu jugé ko cour d'appel après tamit toute suprême ñu kase ko bu ñu ko kasee dafay retrouver toute son indépendance fekkee nag dafa yegg foofu tey cour suprême chambre criminelle li suñu fa ko condamné ni koy jiñ ne moo ko def la la condamnation dafay am caractère définitif maanaam kenn mënatu ko teggi euh, Mansour dafa tombe mu mu euh, samp ndëm ndëndëm mën nañoo ne dafa tombe wala politique da caarax comme ni ko comme ni waxee faw nga gàtt xel loolu pour mën a xalaat ni dafa tombe <laughs> parce que it nag même bu fekkoonte woon ni tombé na te ñu nar loo xam ne ak dal la ci réew mi ci fi mu toll mhm. war nañ ko mën a dàq parce que mën nañ ko dàq ci saa bu leen neexee parce que ñoom ñoo koy woolu ñooy teggi woo mhm. xam nga mi Diaz attaqué nañu ko ci mereem mhm. bakkan rot na ca teg nañu ko ay daan mu ñaari ati kaso juróom-benn weer yi mu war a tëdd juróom-benn weer yi defaat nañu appel wax na taxaw ci kanamu yoon. Mhm. jamono ji ñuy demande justice ci fukki xale ñetti faatu ba léegi. Mhm. xamuñu deretu xale yooyu ci yenn loxo la taq. Mhm. fi réew mi toll defe naa ni ak événement mois de mars yi ci yoon muy muy muy législative euh, muy judiciaire législative exécutive ñoom ñëpp am intérêt pour dëkk bi am calme. dëkk bi am dal mënoo ci génn politique mais bu fekkee liggéeyu yoon la léegi nag ñu ngi xaar la moo fay tukkee en tout cas. am na yoo xamante ni bi jaru ko parce que euh, ñi jëkk a wax seen wax dafay jafe weddi ak xalaat nag bu ubbee ku nekk mun nga interpréter ku nekk mun nga jànge neneen mhm. mais faaw sa xalaat gàtt pour nga écarter ci politique à cent pour euh, ci interprétation yooyu la sax Abdoulaye Mbow ñenn ñi jàpp nañu ni dañoo bëgg a jaar ak moom fi ñu jaar ak Khalifa Sall euh, war ñu fa tàbbi bu fekkee ni loolu la ñu xalaat war ñu mhm. fa mën a xalaat dama dama jàpp ni effectivement justice war na def liggéeyam parce que saa su ne justice mi ngi def liggéeyam en tout temps et en tout moment wante nag coïncidence souvent dafay nekk coïncidence troublante Barthélémy Diaz parce que mbir mi dara mënu ko see war a mën a fekk mhm. damay jàpp ni nag euh, mbiru Ndiaga Diouf bi nga xam ne deux mille on deux mille onze loolu ba deux mille vingt et war maanaam Sénégal waruñu waroon nañ ko mën a jeexal ba mu jeex mhm. tàkk ñu xam fan la faral mbir bi féete de manière définitive defe naa ni waruñu sa mën a yegg parce que ñëpp xam ne mu demee ñëpp gis ni mu demee fekkee nañ ko euh, wala book euh, bu mu xewee yegg si nañu la fa xew yëpp def nañ ko 2011 lañ ko tëj prison wala boog début 2012 ñu fal ko député en juin xaw juillet génn député dem assemblée nationale ñu falaat fal maire il assumé son son son rôle de maire ba jamono ji il est encore maire de Mermoz Sacré-Cœur mhm. damay jàpp ni kon waruñu mën a yegg si li nga xam ne moo taxoon Sénégal xaw a yëngu au mois de mars. Euh, euh, Abdoulaye Mbow wax na ko ndey di met dossier bi tëjaguñu ko ndax kon waaye yi ñoom bi ñuy def seen choix waruñu woon prendre lool en compte. man de sampoon naa ci laaj. Mhm. parce que xalaatoon naa ne euh, bu ñu ko dugalee ci list yi mu nekk tête de liste xel yoon na. parce que dafa amoon dossier de justice donte waxoon nañ ni. Mhm. depuis le 7 eh, Ndeye Dimet danga may may tuuti rek. dina jéggalu bu baax a baax ndax comme ni ñu ko waxee woon ci euh, si ndorteel bi Bougane Gueye Dany euh, kon dafay def conférence de presse ndax listam ci Ndakaaru dañu ko rejeté Mouhamed Diop euh, moom moo ñu teewal foofu Mouhamed ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay xadi colonel. lan moo fa am ci jamono ji. alors euh, euh, justement euh, ni nga ko waxee xadi colonel ñu ngi fii ci siège bu grande coalition gëm sa bopp ni ngeen ko xamee conférence de presse bi nga xam ne leader am moo ko fas yéene def léegi à l'instant comme ni ngeen ko gisee derrière nous ils sont déjà sur place ak yeneen ci ay leader il y également de du maire Bamba Fall li sabab li ne mel nag mooy rejet bi ñu rejeté candidature bu président coalition gëm sa bopp ci mairie Euh, ana moom naka la ko gisee ak naka la ko jàngatee daan ci am lu leer en tout cas euh, ci déclaration mu fas yéene def ak ñi nga xam ne euh, ñoom la àndal ci conférence de presse wala point de presse bi nga xamante ne nii moom lay tenir à l'instant xam naa dañu leen di bàyyi ak ñoom su ko defee ñu tàmbali waxtaan bi ñu mën a xamale sénégalais yi lan moo tax la grande coalition bu gëm sa bopp nga xam ne président Bougane Gueye Dany moom moo ko jiitee woote gi mu woote lu mu wëndu su ko defee sénégalais yi euh, mën a jote ci xibaar boobu. merci beaucoup jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf may présenté Bamba Fall maire Médina ci coalition bi gëm sa bopp ci aussi liste gëm sa bopp ci Médina ñu ko jël ñu dàkkante ko Médina ci xol donc li sabab jotaay bi mooy joxe explication ci li fi jotaam bi ñuy yóbbu liste bi euh, vingt deux heures et quelque la ñu ko yóbbu bi ñuy déposé ba pare ci bi ñuy déposé bi ñuy wàññee la ñuy seetlu ne am nañu ne eh est-ce war ñu def cinquante cinq au lieu de quarante cinq ci laa posé question bi parce que man mandataire laa mais commission d'investiture liggéey na ci mais li ci am solo mooy ñoom dañoo ne liste yi matul ñu soxla ni ñoom soxla na ñoom nee nañu li ñu soxla ci dossier ci 83 la toll mais ñun 90 la ñu déposé kon mënoo ñu liste yi matul parce que 83 nga soxla te ñun déposé nañu 90 kon dañu jàpp ne liste yi dafa ëpp problème agencement la ñu am ci diggante suppléants yi ak titulaires yi loolu commission bi man maa yóbbu dossier yi fekk commission bi daf cee yendoo liggéey mais comme que ñun ñëpp dañoo nekkoon suñu arrondissement yi di toppatoo suñu ay moo tax bi ñu fiy dellu si xam ne ci patam patam la ko liggéey te tamit euh, bi loolu amee ci saa si ma remarqué ni ci commission bi am na ñuy xool ni bëtu ni ñu ko agencé baaxul ci laa ni préfet est-ce que kon dooma may ma xoolaat ko mun ma mënuma la koo may jël naa ko ba noppi loi mayatuma la nga jël ko ma ni ko non bi ma génn ba ci biti laajte ñu ni ma am na ñi déposé nii la ñu agencé ma ni ko ma dellu si waat ci salle bi ni ko minuit jotagul damaa bëggoon nag bu la neexee sax ma annulé waat dépôt bi ñun ñëpp ñëw nañu ñu agencé waat à mu ni ma loolu mu mënuma la koo may daal di génne benn disposition ni ma mënoo annuler mënoo retirer mënoo changer mais liste bi yóbbuwuñu plus de 83 dossiers waxul lu am yóbbu nañu 90 dossiers c'est-à-dire nag daf ci am piège yoo xam ne nii ku teeyul tuuti doo ko xam ndaxte li am ci communes yi bokkul ak boo jàngee texte bi li am ci ville bi parce que boo musaan dégg liste majoritaire mooy raw gàddu boo majoritaire li ci liste bi yëpp yaa ko moom boo gañee proportionnel ay proportion la yoo xam ne ku nekk la nga méngoon la ngay yóbbu mais boo demee ville dañ laa dañ koo dëpp maanaam ville li ñu tuddee proportionnel mooy raw gàdd bi mooy li ngay déposé te pourtant majoritaire la waroon tudd ndax proportionnel moo waroon nekk li nga xam ne moom la ñuy pàccoo ku nekk ca la nga am ci sa commune donc loolu moo nekkoon erreur bi ci majoritaire ak proportionnel moo tax ñu jëlee ko noonu wante ki ñëw nii la min wi jotagul mën naa koo changé boobu tàppee gu ñu sax bi ñu koy njëkk a boobu tàppee gu ñu sax récépissé bi mais dafa mel ni lu ñu yàkkamti woon ñoom man maag Bougane yàgg nañ ci waxtaan nee naa ko de élection yi yow Barthélemy Sonko bu ñu leen ci mayee jàmm dina ma jaaxal ndax élection bi dafa am lu bari lu muy déterminer day déterminer élection législative yi fu ñu jëm ak présidentielle yi fu ñu jëm te yéen ay candidats yu mag ngeen parce que ville de Dakar moom ku ko gañee ngay opposant pale nga yóotu kon duñ dinañu fexe ba xàllal Diouf Sarr yoon lu ñu mën ci éliminer Barthélemy éliminer la yow Bougane fii danañu ko def ndax commencé woon nañ ci sa télé Barthélemy ñu ngi koy indil jafe-jafe ñu ngi seet nu ñuy bloqué sa liste Sonko tamit balaa gis nga léegi ñu indi koy problème lu ne di ko dégg ci ay dossier pour salfaañe ay yelleefam yooyu yëpp dañ koy def ndax bañ ñu am ndam gis ngeen li fi am booba léegi waaye li ci am solo